rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli yi mbokki taalibi yi ginnaaw bi ne nuyoo siyaar leen ndigal bàyyikooti ci alhaji Baara Mbàkke xalifa général kullu murit ñëw ci fan ci kër maam Cerno Birahim Faty Mbàkke ki fi nekkal maam Cerno Birahim Faty ñu feskee ne yëkkati ay kàddu jëmale ko ci mboolem taalib yi nga xamante ni si ne ñoo aju ci Daaru Muxti kon dañu ni ak Serigne Cheikh Khady Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa maam Cerno Birahim Faty Mbacke ginnaaw bi ñu ko ñaanalee mu yàgg fi loolu tànd ko kon taalib yi ñu bàyyi leen ngeen déglu sëriñ bi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu yéen bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina njabootu Cheikh Faty yi nga xam ni noo bokk mbir mi euh, di leen nuyu te di leen siyaare di leen xamal ni ndigal jóge na fa mu daa jóge muy ci Sëriñ Tuubaa dikk fii ci Maam Cerno kon loolu ndigal laa bëgg am kàddu yu ma ci sànni rek waaye ki ko war a wax dana wax lépp kon nag nu danoo war a sant yàlla ndax ba sëriñ ki ki nga xam ne bi moo fi toogal sëriñ ba mu toogee ba tey joxu nu ndigal mu ngi nuy joor jox ndigal kon nag nan yaakaar ni lépp lu nu bëgg te ci xéewal mën nañu ko cee defal ak lépp lu ci aju kon nag maa ngi nuyu ñi nga xam ni ñooy waa kër daaru ñi muy ñi eh, ma ñi nga xam ne moom laa bo ñoom laa ko bokkal ak ñi nga xam ni ay doomam lañ di sët yi ñëpp bàyyiwuma kenn kon nag nan ci takku ci ndigal li nan ko daa defee ñu defee ko noonu te mu gën a sell gën a rafet ndax loolu mooy yàlla ci liggéeyub Serigne Touba lépp lu waay ngi ci liggéeyub Serigne Touba loo ko wuti am ko. am dëkk waaw am dëkk la. Mm-hmm. tool yi surtout waa Bogo. maa ngi si woo ñëpp nekk ku yaakaar borom Daaru rek nañ ko def nañ ko daa def te eh, nañ ko daa defee nañ ko defee noonu ba lam soxla lépp ñu def ko nam ko bëgg mm, loolu laa leen ci doon wax leneen li ci def sëriñ Bassirou dina leen ko wax. a njaga jaay it ñu koy soññi koo xamal ni waruwaay yi nga xam ne moom la fi daa yebal si mu ñëw fi jumaa yi yóbbu nit ñi ci jàmm delloo si leen ci jàmm kon nag moom kenn jiituwu ko ci liggéey bi moom itam ñu ko ci soññ bu baax Sëriñ Basiiru dina ko gën a jottali bu baax a baax wasalaam eh, sëñ man ni sëñ Abbas itam moo fay taxaw sama taxawaay ñëpp danañ ko fa fekk ku na ku yéex a ñëw sax da nga fekk sa tool yi nga koy fekk <laughs> buñ noppee na yeew yi ñëpp ñaanal ñëpp dara yi sëñ ak borom daaru mi niy liggéeyal waaw